merci dañuy woo koo xamante ni vraiment boroom taxawaay la yàlla def na mu bokkoon ci ñi nga xam ni euh, dañ leen a déewoon ci biir kaso bi waaye muy borom taxawaay génn andi kàddu yu am solo jëmale ko ci suñu candidat ñuy woo suñu doyen Cheikh Oumar Diagne mais ko loxo الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu ngi leen ziar di am mbégte taxaw ci bërëb bu tedd bi pour andi ay gan andi ay seeni dëfal leen dëgëral leen gën leen a ñaax ñu xam ne ci guerre ce pays est en guerre depuis 2021 kenn moo taal guerre boobu mu ngi tudd Macky Sall yéenewuñu jàmm yërëmuñ joxuñu cër faalewul waa réew mi ñu war a am taxawaay nag jëlee ko fi Macky nee waaye lu mu wax waxul dëgg soosu du wax dëgg góor soosu amul jom góor soosu du nit ma leen di fàttali ñaar ba léegi jamono ji tappalekat yëpp ñu jóg di wax naan Bassirou xale la naan Bassirou dafa noppi yàlla mësta yónni ay màgget yonent yëpp 40 ans la yónni ñu yónni jaahil Basiru borom xam-xam am na benn waa doon campagne ci 2019 fu mu romb ne teg naa foofu loolu mu tajoon yëpp Basiru bu ñëwee dina ko tabaxaat waaye maa ngi di giñal ni boo leen ñamee Basiru doo leen ku yiw la nit ku am diine la nit ku am jom la nit ku am xalaat la te nit ku bëgg réew mi ma leen di seedeel ni wallahi azim waxuma ko ngir dara te sàkkuma ci lenn waaye Bassirou mooy le candidat bi nga xam ne moom la organiser la rupture pour ñu yóbbu réew fi nga xam ne foofu la ko ñu ñëpp yéen taxawu leen jomaay jomaay yaa bari doole jomaay yéen man la chambre treize la nekk foofu la toog ci ngor toog ko si jom di jaamu yàlla ñu wàcc yoon bi ko ñëpp xamee ñëpp ko naw kaso directeur ba garde dëkkatu yëpp ñëpp ko naw kaso kenn ku nekk si ñun dafa jomaay Sonko bi ñu dellu Sénégal ñu leen di di leen ziar yi ñëpp asalaamaaleykum li mu wax ci Bassirou Diomaye yëpp loolu nekk ci weer fa nekk yëpp ñun inventé ay qualité pour suñu candidat ndax ki nga xam ne moo ko tànn moo toog ci kanamu askanu Sénégal moom Ousmane Sonko ñàkk ki ñaan ba dee ndax li mu def leader yu bari buñ ci tolloon duñ ko def Mama Aïda Mbodj mën na seede loolu képp def politique ci Sénégal da nga naan man la mbaa doon keneen moo tax mu njuy leen ne leen Basiru laa tànn man Sonko maay Basiru Basiru mooy man donc na seen xel dal démb présenté nañ li nga xam ne mooy suñu programme lu toll ni trois cent cadres suñu kuréel ci politique ak ñi ñu àndal ñëpp ci coalition bi def programme tuddee ko le projet mu nekk programme boo xamante ni képp kuy sénégalais di ci gis sa bopp ba ci ñi nga xam ni daanaka dañ leen a jël génne leen ci suñu république mooy ñi ñuy woowee doomu daara ñu gis ci seen bopp bu baax a baax c'est l'occasion ici ñu gërëm ak a sant bépp doomu sénégalais moo xam yaa ngi ci réew mi wala bitim réew te jël sa xalaat ak sa kàttan dugal ko ci réalisation programme boobu nga xam ni mooy programme suñu candidat Bassirou Diomaye Faye ñu tuddee ko la projet may ñaan kenn ku nekk ci ñun na nga ci weeru koor gi bu ñu defee suñuy porte a porte ba pare na nga ak sa waa kër nga defal leen weeru koor nit ñi dañ naan tafsir waaye ñun ci campagne bi dañuy def tafsir programme en ah, Cheikh bu ñu jullee gee ba pare ba naafi la nañu jël programme bi taaj njaboot gi ne leen ñu wax leen lan la Basiru nar ci réew mi bu ko defee le vingt mbir yi dana yomb donc c'est l'occasion également de féliciter de remercier ñi nga xam ni benn composante bu am doole ci suñu projet bi muy la diaspora mais leen loxo bu baax merci merci encore merci je ne cesserai de le parce que su président Sonko taxawoon fii wala Bassirou Diomaye Faye taxaw fii dina ko wax merci à la diaspora doomu sénégalais yooyu nekk ci réewu jàmbur di yeewu à des tôt le matin di dugg seen kër très tardivement waaye di xalaat seen réew saa su jamono teewee ñu jël seen alal keroog bi ñuy def levée de